Yes, waaw may day dem YouTube gis xamoo ne direct bi li ñu demoon na ba 4000. waaw. Thank you. здоров. kon yow kese la ñuy tere gré bi. waaw xaaral ma oto bi ngeen gis nii ci la Jomaay nekk Jomaay moom ci oto bu ñuul bi dañu bett ba duñu xam fan la ñu bëgg Pape loolu laa doon soo bëggee seen toogaay dañ lay jëloon. daaw daaw bàyyi ko mu dem Pape ah. c'est parce que seen ligne la.